yéen a war a yor Sénégal ndaw yu mel ni yéen yéen a am doole pour yóbbu senegal mu jëm kanam métti na nag waaye li jaru ko jaru ko donc ma leen di ñaan rek ngeen bàyyi li ngeen nekk di def vraiment gaal yi ngeen di jël ngeen bàyyi ko xam naa ni dund ngeen lu metti boo leen delloo ngeen waxtaan ak seen ay xarit seen ay dëkkandoo ngeen wax leen nañu bàyyi li ñu nekk di def te itam bu leen ruus ñibbi seen kër bu leen ruus ñibbi seen kër xëy na da ngeen dem ñafe daanu seen doole am jàppale seen waajur waaye yàlla dogal na leneen bu leen ruus ñibbi seen kër donc loolu laa amoon lu ma leen di wax di leen ma sew vraiment ngeen jégal ma tamit ci wax MTV, la chaîne de la Renaissance. MTV, la scène de la Renaissance. MTV, la scène de la Renaissance. MTV, la scène de la Renaissance. MTV, la scène de la Renaissance.